waaw man la Maguette Wade di taalibe ci Cheikh Seydil Hadj Malick waa jamono ji moom bu bu fenkee rek mbégte gu rëy laa yëg sama xol contentement bu man sama sama jëmm damay sentir ne damay damay mel ni damay bees leer gi may dund air bi may bi may noyyi rek damay sentir ne air bu bees la ndax guddi yi nga xamante ne Cheikh Seydil Hadj Malick moom la ñu fànkul ngir ñu teeroo ko guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn du guddi yooyu moo tax bu teeroo ba muy tàmbale ba ba muy jeex guddi gu nekk day bees ci ñun te guddi gu nekk ñun suñu bopp bu ñuy jàng burdi dañuy sant ne bees nañu moo tax mag ñi kenn nu leen fay kenn du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa fukki guddi yooyu nag li mu koy li mu koy dundee mooy di sañse di xeeñ lu neex di di di jaamu yàlla di sañse di xeeñ lu neex di jaamu yàlla di lekk it lu neex gars yi burdu dafay ànd ak lekk gu neex ànd ak naan gu neex sol lu rafet xeeñ lu neex noonu lañ koy dundee macha allah taala. waaw mais xam nga guddi gi nga xamante ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne ñun moom lañuy ñuy noyyee ci la judd kooku guddeem guddeem mooy lépp ñun lu ñuy def gannaaw jàng alquran yeeg yëpp dañuy dañuy dañuy li li Seydi Hadj Mahi di wax alxaatiroo baaxiroo xayral buxuri wa africhun sajaadaati takriman xal qasami moom moo ko njëkk a wax si jaada yi ci boppam nañ parfum si jaada yi toog ci xeeñ lu neex waaye nag sol lu rafet. bu ko defee xam naa tabaarakallaa guddi gàmm waroon ngeen a ñëw ba gis samay samay samay gram bu jaseen yi may lu rafet xeeñ lu neex tagg yu yonent bi sallallahu alayhi waaye jaamu yàlla ñaan ngir sunu borom dolli ñu te saa ñu ko defee rek at mu ci topp at ma ca topp dañuy gën a yokk dañuy gën a dolleeku macha allahu taala an xaatiro baqiro xayral buxuri wa af riishum sajadati tak ريما على القسم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم